nee na suñu borom kat am na xeeti caay-caay yum aaya yoo xam ne da ko araamal te ku ko muy tuut boo tuut sawara man la caa fekk boo ëllëgee xarama araamal algasiba fen wal xiibata ak jëw ma nami mët ànd ak rambaaj kibiran ak rëy wa xuj ban ak aaw xat yaqan goog amaana mu tàbbi wala goog dana tàbbi rek su ma riyaan topp ngistal sumhatan ak ndéggtal buxdan aku mbañeel xasaran ak kañaan ru'yata fadlin ak gisub gëneel xal ahadi ci kenn mutlaxan ak ku man di doon muy wéy daa wax ne bokk na ci yàlla araamal fen fen mooy wax lu bokkut la am loolu bokk na ci bàkkaar yu mag yi ak jëw jëw mooy nit nekk fi nga wax ci moom loo xam ne bu ko déggoon du ko neex te fekk sax loola am na waaye bu ko déggoon du ko neex te bu fekkee loolu farul am sax moom da nga koo duural boole ja moom nag lu yaatu la ndax loo wax ci jëmb ji mbaa ci lu aju ci moom niki mbubbam mbaay dàllam mbaa montaram mbaa toolam mbaa këram mbaa otoom mbaa ab liggéeyam moom daal loo wax ci moom loo xam ne rek am na te bu ko déggoon du ko neex rek loolu jëw la ak rambaaj nak moy, dem di netli ay wax ndax bëgg yàq diggante nit ñi lépp loo xam ne boo ko siiwalee mu andi yàq rek ko war a moytu bañ koo siiwal ak rëy rëy moom jikko la joo xam ji yàlla bañ la mooy jàpp ne am nga martaba ke am na martaba waaye yaa ko ëppale martaba loolu mën naa fay nag ci bu la waxee dëgg nga dégg ko doo ko nangu wala ngay jéem a réylu ci kawam di ko xeeb ak yu demee noonu ak aaw aaw moom mooy naw sa bopp soo nawee sa jëf rek mbaa sa xam-xam rek mbaa sa jikko rek loolu sikk su rëy la aaw bokk na ci jikko yi gën a bon ak ngistal ngistal moom mooy jëf joo xam ne jëfi àllaaxira la nga def ko te yàlla yi kese taxut loo def ngir yàlla yi kese kese rek mooy lu sell bu ci leen raxee lu bokk te yàlla rek ngistal laal ca bokk na ci yaaraam ak ndéggtal ndéggtal moom mooy jëfan jëf ju baax di ko nettali nag ngir bëgg ku la ca tagg mbaa ku ca naw li sax boo jëfee lu baax di ko nett li ngir bëgg ñu roy la ca ak sant yàlla moom dara nekku ci waaye boo jëfee lu baax wala bëtiku di ko nett li nag ngir bëgg ku la ca tagg mbaa ku la ca naw mbaa bañ boo ko nettliwut ñu xas la mbaa yu demee noonu rek loolu mooy ndéggtal buux dan jim ci teg bañal mooy jekki-jekki bañ ab julit te yàlla taxut la koy bañe daal weesuul yëfi addunaak ngir ñàkk déggoog yu demee noonu rek kon daal koy bañ danga koy bañ ngir yàlla koy bëgg bëgg ko ngir yàlla kañaan gi ci teg mooy sa mbokkum jullit am xéewal te yéenewoo ko ko boo ca boolee wax mbaa jëf ci sa loxo nag loolu moom te daal di araam de sax bu fekkee neexula ci sa xol maanaam daal kooku am na xéewal goo xam yéenewoo ko ko waaye boo sañoon sax yéene ko ko sa xol rek nga mënta walbati te it waxi ko jëfe ko kon kenn la ci bindal bàkkaar waaye nag boo ko waxee mbaa nga jëfe ko rek moom mu nekk kañaan goo xam ne gu araam la buñ lay bindalee bàkkaar ci topp mooy ñi yàlla sàkk nga defee ne gën nga ci kenn kenn kenn saa yoo gisee yàlla sàkk gën nga ci kenn kenn rek xamal ne loolu amee nga ak rëy te ëppoon naa def ndax li ñu gën a nit mooy xam-xam ak diine xam-xam ak diine tëkkuwut ndax ak mujj rek am solo te ndegam xamagoo sa mujj ki xamagul ak mujjam kon xam-xam ak diin lum rafet rafet sant rek tey góorgóorlu ak ragal moo ca war waaye wootu tax mu defee ne gën na kenn ci xam nga mbaa ca jëf ja wal hamza ak hamza wal lams ak lamsa bokk na ci yàlla araamal sikkal ab jaambur ci kaw jundeeg sa bët ba xam ko ak sikkal ak jaambur ci kaw junjëg saw làmmiñ ba bañu xam ko wal hamsu haybun bi ishaaratin huyoon wal lamsu bil lisaani mayis yaa fatin nga jàngoon ci aljawhar alhamsoog lamsu xeeti jëw lañ saa yoo xam ne fexe nga bañ xam sikkus jaambur ci kaw na nga ko junjee ci sa bët bañ xam ko mbaa soo làmmiñ bañ xam ko rek loolu xeetu jëw la te bokk na ci araam waylun li kulli humazatin lumaza koy jàng ci alquran kazaaka naka noone alxabasu fo foo moom dañuy seet rek mépp moo xam ne yoon yoonte bi aaya na ko rek ñu war koo moytu booy jàng jawharul teqale woon nañ ko am na fo mu araam am na fo mu ñu am na fo mu dagan am na fo mu ñu kon nag mën ngaa dellu ci teqale ba foofa suxriyatun ak reetaane reetaane suñu borom da ko bañ lool ba wax ne laa xar qawmun min qawmin xasa an yakunu xayran minhum wala nisaun ay nisaain xasa an yakunna xayran minhunna bu góor reetaan góor ndax boo demee kookee muy reetaan ko gën bu jigéen reetaan jigéen ndax boo demee kookee muy reetaan moo gën moom mi ko reetaan kon reetaane moom ëpp naa def si nag ak njaaloo njaaloo mooy jote góor jigéen ci sawukaay te fekk waruñu woon a jote ndax ab sëy doxul seen diggante ndax léegi mu wàllu njaam amatut kon sëy rek mooy tax seen diggante ñu sañ a jotee ci sawukaay kon nag suñ jotee rek ci sawukaay te sëy doxul seen diggante loolu njaaloo la bokk na ci yi gën a araam kasaaka naka noonu rafasum becc maha ajnabiyatin ànd ak jaamur bu jigéen booy jàngooy wi nag maha ajnabiyatin rek jaamur bu jigéen bul waxanteeg moom waxante wu neex di ko kolaas mbaa waxanteeg moom lu jëm ci jote góor jigéen yi mel noonu araam na ëpp naa def ak koo xam ne jaambur la ci yow jaambur jigéen nag mooy koo xam ne araamu laa takk moo xam am na jëkkër moo xam amul jëkkër ka nazaret ni ki xool tasaa ni ki nii xadd xarama araamal na at tala dusa bànneexu bi sawtihaa ca kàddoom nga jaambur bu jigéen nee nañu suñ laa xool lu may kanamam ak ay tënkam ci sartu sax mu wër la ne xool ga doo ci am fitna tey jëmmi xool ga jubluwoo ca bànneexu yooyu yaar bu ca tasee nga xam ne xool ga jubluwoo ca ak bànneexu tey ragaloo ci fitna kon mën ngaa xool kanam nga ci wax yi ñooñu ba tey jigéen joo xam jàmbur la ci yow dañ lay aaye ngay bànneexu ci doom ndax dañuy bañ bu la kàddoom neexee boo tuut seytaane ñoddi la bëgg la booleeg moom ba nga joteeg moom jotee gu araam kon na nga moytu bànneexu ci kàddug jigéen joo xam ne ni jaambur la ci yow